mooy loolu saat lépp day loolu quoi. fin bi baax na de. waaw Aïda Mbodj dem. fin bi baax na de Aïda Mbodj du ma dem na ñëpp dem. Aïda Mbodj élection yi jaar si yoon. ñu ñëw ci Aïda Mbodj ah. Mm-hmm. Aïda Mbodj bi nga xam ne si ni moom tamit daal dinay euh, déclarer candidature am démb la ko amal mm-hmm. moom Aïda Mbodj bokk ci euh, yeewu askan bi. jiite mm-hmm. parti bi nga xamante ni moom moo di. ànd saxal liggéey moom Aïda Mbodj donc moom pare na pour daal di mën a bokk ci jigéen ñi nga xamante ni dinañu. Eh, daal di uti eh, maanaam eh, yore li nga xamante ni moom moo di réew mu Sénégal Moustapha mhm. Aïda Mbodj gis nañ ko tamit moom am na ak jege mhm. ñaale trop trop ak Ousmane Sonko ba Ousmane Sonko sax yaay la koy wax day déclaré nag mhm. candidature am ah. noo ko noo ko jàngatee en tant que ku bokk ci yeeyu askan bi tamit bokkoon ci benn nekkoon ci ku am taxawaay tamit waaw bokkoon ci ñi nga xamante ne tey jii kenn du leen présenté et puis mu am role bu am solo bu mu joué ci euh, Ousmane Sonko jafe-jafe yu mu amoon ak euh, Adji Sarr jamono ji nga xamante ne ñëpp daana ko ñemewuñu woon wax euh, bañ ko doon tuddee sax son avocat ndax bañ demee assemblée nationale bokkoon na ci député bi nga xamante ne bañ tegee commission bi moom moo taxaw doon defendre kii di Ousmane Sonko di loo xamante ne. Euh, mën naa ne euh, période boobu tàngoon na diisoon na métti woon na euh, Aïda taxaw dégg ko lu ne mu dégg ko ci wax na ni sax defal nañ koy proposition yu nekk pour mu lâcher Ousmane Sonko bàyyi ko mu daanu mu lànk kooku tey jii bu déclarer candidature am il faut faire la part des choses parce que dama jàpp ne am na loo xamante ne moom dafa am une carrière politique bon même loolu même loolu mën nañ ci revenir am loo xamante ni tamit yeewi askan wi la mën nañ ko jàngat ci ñaari fànn bu njëkk bi mooy mën na mu am benn benn benn idée boo xam ne mën na jàpp ne tey jii bu Ousmane Sonko demul mën na bénéficier wu ci yenn voix yi nga xamante ne euh, ñenn ñi commencé nañ am benn sympathie bi ci moom parce que dafa jege Ousmane Sonko daf ko doon jàppale am na nu mu ko mel loolu benn la beneen bi mooy candidat yuram ak jigéen mën na doon loo xam ne tamit mën na mm-hmm. répondre benn mm-hmm. benn exigence actuellement gisaguñ fi jigéen boo xam ne am na benn poigne bi wa benn taxawaay pour déclarer candidature am kon ñaari côté yooyu boo ko xoolee mi côté Yewwi Askan Wi mhm. ak côté ji nga xam ne dañoo ànd ak Ousmane Sonko mën na yaakaar euh, galaanee fa dara ci ay voix yoo xamante ne euh, mën na ko may mu am benn benn niveau bi mais pas yaakaaruma ko ba tey mu am ci benn toll ci benn niveau yenn leader yu mag a mag yi parce que candidature euh, présidentielle mhm. comme ni ma koy faral di waxee dafa am ñett la dafa am comme ni ñu ko doon waxee candidature de témoignage mooy li ñoom li ñoom li ñoom Alioune Petit Mbaye defoon li ñoom Djibril Ngom defoon ni moo ñëw année 2012 wala 2019 j'étais candidat. Hmm. kooku c'était candidature de témoignage dañ ko da nga dem bokki ji rek pour bokk mais xam naa ne du ma j'ose espérer que du candidature de témoignage parce que parcours ma yëpp li mu jaar xanaa du du mhm. duggee ci lu ñu mel noonu. Mhm. parce que souvent yooyu ay. représentation boobu. am na ko national. loolu loolu mooy problème bi boo ko bu ñu nee Aïda Mbodj rek moom Bambey rek la ñuy wax. Bambey Bambey la et puis Bambey léegi nekkatul si ay loxo voilà. Bambey si ay loxo. mais loolu beneen beneen mbir la boo xam ne mun mun mun nañ ci ñëw. Mhm. donc candidature de témoignage su koy def souvent mooy. pour après mu mën ci sukkandiku am yeneen biir rek yeneen parce que bokkoon naa je pèse un pour cent je deux pour cent j'ai euh, j'étais classé troisième wala quatrième wala cinquième euh, bon dixième jëm kaw beneen mbir la mu am candidature d'essai mooy candidature bi nga xamante ne da ngay sànni mën nga gagner ko mën nga bañ a mais mën nga bokk si peloton de tête bi comme l'a fait Macky Sall da ngay essayer da génn rek dem déplacer candidature non non damay essayer rek candidature d'essai nga mën naa am parce que nit ñi am nañ. Mhm. lu ñu yaakaar ci candidature d'essai mun mooy ñu nekk ñu nekk position outsider yëpp pratiquement ay candidature dese lañ parce que mën nañ ko for moom ñoom nag ay candidature naturelle lañ mi ngi mel hmm. ngi mel ni Khalifa Sall ay candidature yoo xam ne actualité politique bi contexte bi moo ko moo ko sampul balaa ñu ko investir ñooñu boo génnee candidature naturelle ak candidature essai candidature d'essai yi pratiquement beneen bi nit ñi duñ xool te Aïda Mbodj boo koy classé si candidature témoignage nga ko classé avec tout le respect bi nga xam ne moom lañ koy yor mm-hmm. maanaam dama samp rek pour samp mm-hmm. parce que am na benn maillage national boo xamante ne def na temps ci dëkk bi mais amu ko euh, am na benn appareil boo xam ne moo la war a dimbali pour nga jot ci ab réew amu ko est-ce que entre temps ba mu génnee ba léegi nekk ci yeewu askan wi wër na réew mi nekk na maire pour pour proximité bi nga xam ne war na ko am ak ñi nga xamante ne ñu la bëgg a jiite suba donc y a beaucoup de choses yoo xamante ne manqué nañ ko pour candidature am benn dooleem maintenant mën na nag créer surprise pour am benn score bi am beneen taxawaay bi parce que bénéficié wu na ci benn benn benn sympathie boo xam ne am na ko entre temps euh, parce que vent yeewi bi mën na ko propulser mu dem mais il faut comprendre que ne machine wu yeewi bi dafay dafa dafa adossé wu ci Ousmane Sonko bu demul si la ay candidature yu mel nii ñoom euh, dem boot ñoom Déthié Fall ñeneen ak ñeneen ñi nga xamante ne nit ñi mën nañ ci jàppandiku comme ne comme gisuñu Ousmane Sonko mais bu Ousmane Sonko demee man je pense que ni sax bu je pense que boo moytu Aïda Mbodj dafay dafay dellu ginnaaw ci candidature bis bu Ousmane Sonko jàllale woon boo moytu mu dellu ginnaaw ci candidature parce que mhm. dootul amati benn benn benn benn doole bi nga xamante ni moom lay espérer am parce que ñi mu yaakaar ñu voter mu yaakaar ñu dem c'est un peu comme Pape Djibril waaye daa fekk ñu joxe suñu kàddu ba noppi c'est-à-dire bi muy doog a démarqué wu boobu sax ay jafe-jafeem amagul woon mhm. ak waa ak waa Yewwi Askan parce que dafa am ñoo xamante ne Euh, mi ngi mel ni si je prends l' exemple de Dame Mbodj tey ji bu déclaré woon candidature Ousmane Sonko déclaré candidature am xam nga moom sympathie bi mu am yëpp ak cofel bi nit ñi am yëpp c' est grâce à son Sonko kooku bu déclaré liñ naan kenn du gis euh, chef bi di dem ci premier ministre bi. donc loolu dafay bokk ci li nga xamante ne mën na doon benn benn benn handicap boo xamante ne candidature maintenant boo ko jëlee ci beneen côté bi jigéen la am na expérience bi am na bon am na expérience politique parce que députant socialiste mi ngi doon politique nekkoon socialiste yi jóge fa dem ci libéraux yi mu dem ci euh, opposition bi donc am na benn taxawaay boo xamante ne am na ko mais je ne pense pas mu doon benn candidature bu am poids suffisamment bu suffisant boo xamante ne moo koy may mu jël réew mi mmh. euh, Aïda Mbodj. Mhm. noo ko noo ko jàngatee. Ah, le Sénégal a à devoir une présidente de en Fatou. Mhm. Sénégal yàkkamti na am présidente bu baax a baax. Ah, ñu xool jigéen bi takk musóor ñu xool nu mu mënee. yàkkamti nañ ko am. jafe na gis benn. su ko defee su ko defee benn politique. Hmm? le mari sera le ah, ma ne ci Sénégal gis jafe na ñu gis fi jigéen boo xam ne si ci wàllum politique. Hmm. am na euh, maanaam doole. ci wàllum politique dara yëpp atteindre la présidence dina dina dina mën a gagner hmm. euh, élection présidentielle. voilà on peut dire que ne Aïda yàgg na ci terrain bi ah. elle a elle a elle a joué beaucoup d'années elle a des elle a beaucoup de savoir pour atteindre certains niveaux surtout que mu ñëw daal di def discours jëmale ko ci Ousmane Sonko te ku ne xam ne ni actuellement euh, boo tuddee Ousmane Sonko ci li nga xamante ne ci ngay demal rek dinga nga di nga di nga di nga am adoration bu baree baree baree bari surtout discours am wax na ko Ousmane Sonko sama doom loo yónnee na ko ndaw kii na ko épaulé na ko ci et tout ça donc ça donne l'impression que ni euh, tey jii si toutefois rek euh, Ousmane Sonko bokkul wala dara le fait que moom muy amal campagne di battre campagne di tudd Ousmane Sonko ci ay campagne di ko mettre en avant di euh, mettre en avant li nga xamante ni moom moo di ay projet am dina ko apporter quelque chose mais ça ne veut pas dire que ni nag dina ko yóbbu euh, fu sori le fait que mu war a dem fu sori ci biir campagne bi le fait que mu war a dem fu sori euh, ci élection présidentielle yi loolu nag dafay laajaat mu reculer waat xoolaat li nga xamante ni ñoom ñoo di mbooloowam ñi mu am ak lieu yi nga xamante ni foofu la mën a gagné c'est pas parce que da ngay taxaw rek léegi tudd Ousmane Sonko moom moo lay may daraja bi nga war a am. loolu ci côté euh, élection euh, locale yi la amoon ku tuddoon Ousmane Sonko dem nga ku làkkatu woon ci ginnaawam dem nga donc ça ne veut ni tey bu làkkatoo ci ginnaawam dina dem Ousmane Sonko bokk ak mu ñàkk bokk yëpp ndaxte temps bi nag léegi dafa am lu mu waat bu baax a baax a baax moment boobee gisuñu woon lu bari loo xamante ni xewoon na ci biir Yewwi moment boobee gisuñu woon image yu baree baree bari lu ci mel ni image yu Khalifa Sall lu ci mel ni euh, ima image yu kii nii di Barthélémy Diaz donc yooyu yu bari feeñ na biir Yewwi ba tax na yi sax man dama naan ça n'existe plus c'est Pastef qui existe donc ça ne veut pas dire aussi que moom ay Mbodj tudd na Ousmane Sonko dina dem fu sori mm. loolu ñu tenir ci compte bu baax a baax a baax te ma man li ma jàngat ci discours am lépp loolu la mm. démb dafa làqatu bu baax a baax a baax ci ginnaaw Ousmane Sonko mm. làqatu na ci bu baax a baax a baax te du loolu moom mooy tax mu nekk euh, président ou pas d'accord foofu foofu la doon bëgg a dugg ah ak mm-hmm. Mohamed parce que mm-hmm. eh, dafa am ay euh, ñoo xam ne si nii ci yeewu askan bi wala ci ku mm-hmm. jege ñoo xam ne eh, tey euh, déclaré nañ seen candidature ku ci mel ne Aïda Mbodj mais ñu bëri xam nañ ni du ñu dem du ñu du ñu bokk euh, peut-être que dañ koy def pour euh, mm-hmm. pour euh, tenter si toutefois Ousmane Sonko demul ñoom ñu mm-hmm. mën a dëggal seen candidature boobu pour mën a maanaam mën a yóbbu mën a mën a jël ci électorat bi nga xamante ni moom mooy électorat Ousmane Sonko bon d' abord ku ne ku ne ku ne ku ne libre nga pour pour pour pour déposer ngir nekk candidat wala candidate ci ci élection présidentielle euh, xanaa def quelques réages sumaires par rapport ak li ngeen doon wax que ni ñàkk na Bambey je pense que ni Assane Dia maire Bambey bi fa nekk instant bi moom à travers la coalition Yewwi Askan Wi ñoo ko propulsé ba mu jot ci maire bi par la suite la transhumé dem dem APR donc ce qui veut dire que ni tey ñu ngi ko doon woowee sax poulain wu Aïda Mbodj donc ce qui veut dire que ne ñi ñi gëm Aïda Mbodj biir Bambey ñu ngi koy gëm ba léegi et récemment fan yee ñu génn daal dinañ ko euh, introniser mu nekk Linguère foofu ci ci dëkk ba donc loolu day wane mm-hmm. Mm-hmm. Euh, sympathie bi nga xamante ne waa Bambey am nañ ko ci moom ak euh, adoration bi donc loolu benn la kon ba léegi ñàkkagul base loolu laa bëggoon a expliquer mm-hmm. li si des mooy tey je pense que ni contradictoire lay doon en en pensant que ni moom dafay jafandu pour ñu éliminer Ousmane Sonko ngir mu mën a am Euh, électorat wu Ousmane Sonko ngir mën a dem parce que tey xeex bi ñi ci gën a taxaw gën ci dogu pour que Ousmane Sonko am éligibilité am li mu wane ci kaw moom bokk na si ñi ci gën a fës donc là du ma mën a euh, jàpp que ni dafay jéem a xeex pour que di xalaat que ni dinañ éliminer Ousmane Sonko am déet bokk na ci rare personnes yi nga xamante ne wala rare personnalité yi nekk biir yow yi accepté statut Ousmane Sonko parce que moom sax moo dem ba dippee ne Ousmane mooy champion wu euh, coalition Yewwi mm-hmm. Askan Wi xaar à ce ñu éliminer Ousmane Sonko Sonko pour mu mën a récupérer pour man dañ dañuy fausser débat bi parce que tamit quoi qu'on puisse dire Aïda Mbodj personnalité la fi nekk na maire jiite na tamit yenn branche ci ci ci ci état bi donc kooku am na posture nekk candidat léegi nag ndax askan wi danañ ko voté lam déet loolu beneen affaire la et eh, ñu ngi wax di jël toujours en considération Ousmane Sonko ci biir coalition Yewwi Askan Wi te am na beneen force tranquille bu nekk di nelaw biir coalition Yewwi Askan Wi moom mooy parti et ba tey ñoom amaguñ benn candidat boo xamante ne désigné nañ ko pour mu représenter leen ci élection présidentielle loolu c'est à prendre compte parce que tey pur euh, booy xool débat public bi ni muy agité woo doo ko ci dégg mais boo demee à chaque fois nga dem élection da lay réalité am mm-hmm. def na ko ci élection législative 2017 kenn xaaru ko woon bi mu fay génn ak député yu mu am ñu ñëw élection présidentielle 2019 mu jël quatrième ak ni ñu doon amee jafe-jafe pour mën a def seen i campagne ak affaire yooyu donc mu nekk benn force tranquille boo xamante ne mu ngi nelaw war nañ ko jël en compte c'est c'est bokk na ci ñu gën a am doole mais tamit pur euh, je pense que ni war nañ ko jël en compte foofu sax laay xaw a blâmer tuuti yàkkamti bu xalifa Sall def pour génn dem bokk si dialogue bi ngir mën a bokk parce que xam naa ne bu teyoon tuuti peut-être électorat wu pur mën nañ ñëw jox ko ko moom mu porter seen candidature donc pour ñëwaat si candidature Aïda Mbodj man dama jàpp ne lu la lu légitime la léegi nag peuple sénégalais bi moom mooy dem dem juger est-ce que kii war nañ ko mën a jox suñuy voix am déet loolu après lay leer. d'accord Fatou. candidature mm-hmm. Aïda Mbodj waaw mais candidature bu normal la bu légal comme mm-hmm. comme comme tout na mm-hmm. droit euh, déposer sa candidature mm-hmm. sauf que Sénégal nag dañoo war a mën a nag maxfus nag mos jigéen ñi nag jox leen palais bi ba xam jox leen palais bi ñu xool comment ça va se passer jigéen ñi jiite ñu ñu xool ba xam su ko defee ñu gis borom tagal gi nag borom tagal gi biir palais dafa dafa dafay yoon nag loolu dafay dafa dafa jot Sénégal mos jigéen ñi <laughs> su boobaa ñu xool euh, ndax système bi dina changer wala déet mm. bon su ma ñëwaatee si Aïda Mbodj moom gis nañu jege Ousmane Sonko trop trop trop trop. Mhm. jege wantoon nañ trop trop trop man euh, gis naa am na fu ma leen gis mais franchement ni ñu jege wantoo woon euh, man daf ma sax dépassé woon. donc tey jii nii euh, bu xëyee samp ndëndam mun nañu jàpp ne xëy na elle fait partie des rares personnes yi nga xamante ne gëmuñu à 100 pour cent. que Ousmane Sonko ah, dina dina dina dem élection mhm. que Ousmane Sonko dina dina dina dina mën a bokk je pense que bokk na si ñi nga xamante ne les rares personnes yi ko gëmul mën na firndeel li nga xamante ne moom moo am nii mais jàpp naa ne sax euh, tey bu ñu demoon ba àgg foofu ba ba mu leer ko ne Ousmane Sonko dafay dem jàpp naa ne dina dem rangé wu ci ginnaaw Ousmane Sonko parce que ñoom ñaar am na complicité bu nekk seen biir peut-être bu sax nit ñi ñëpp xamuñu xamuñu ko mais nit la koo xamante ne nii euh, ku bëgg usman sonk la et ku koy jàppale la si lu bari boo seetee depuis euh, phénomène Sonko commencé ba tey mm-hmm. tout le temps da nga koy dégg day def ay sorti da ciy wax da koy jàppale bu baax a baax donc nit la koo xamante ne jege na ko baax euh, donc bokk bi nag moom Euh, citoyenne la euh, koo xam ne la yàgg na ci politique bi et que def na fi ay ay yu baree bari ci politique bi boo demee Bambey par exemple euh, ñëpp xam nañ ko moom mun nañ ne base am la et que moo ko moom boo bokkul ak ñi nga xam ne ñu ngi nekk seen ay dëkk am problème mu gagné fa seen bureau de vote sax ba di fa gagné élection ba di fa gagné mairie et pourtant samp nañ seen dënd donc pourquoi pas elle moom mi nga xamante ne moom na dëkkam Bambey lu mu métti métti dafay gagné ay élection et que Sénégal tamit dëkk boo fi dem boo nee ay dëmboo ci xam nañ ko donc c'est très normal normal mu mhm. tante chance am bu tante chance am yàlla mën na ci def euh, jàmm mais xam naa ne moom mhm. candidature am dafa dépendre man dama jàpp ne si candidature Ousmane Sonko ci la candidature Aïda Mbodj dépendre mhm. coalition benn bokk yaakaar tey jii dinañu waxtaan fële ca de la République Macky Sall donc